bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taalaa alaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sallama tasliiman mbokk yi sëriñ bi nee mi ngi leen nuyu bu baax ñëw teew ci bis bi ngir yëf yu bari teew fi ngir jëmmi bis bi teew fi ngir jëmmi waajuram wu tedd wi di soxna Maymunatul Mbàkke bintu xaadimu rasul ñëw fekk ci sëtam bu tedd bi di Cheikh Abdou Bali ak njaboot gi ci kër gi yëpp nee na mi ngi nuyu ñëpp nag waaye nee na fi muy tàmbalee ay kàddoom rek mooy lam waxoon fële ci asalam rek nee na moom lay waxaat dëgg nee na saan wu jam ñaari picc nee na loolu la wolof yi di wax nee na mooy bis bii sëriñ bi nee na laylatul xadri ku ne xam na ni laylatul xadar ni muy demee ku ne xam na ko waaye laylatul xadri goo xam ne soxna Maymunatu moo ko sos bàyyi fi ñu mel nii ñu di ko doxal day laylatul xadri goo xam ne yemut ak yëpp moo tax nag ma ne saan la muy jam ñaari picc ndax soxna si bu ko sosoon te du laylatul xadri sax jam na moo tax nee na moo tax mu ñëw di barkeelu ci bis bi di ñaanal sëriñ Abdou ñoom yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg koo def ñu nit ñu yàgg koo fekke ànd koog ñoom hmm? nee na bis bi bisum njariñ la boo xam ne njariñam sëriñ bi nee na sutu tudd sax asakaam sëriñ bi nee na loolu rekk la sëriñ bi nee na mi ngi ñëw di la siyaar si yow Cheikh Abdou Bali li nga doon wax daal Mbàkke firnde jaa ngi nii li am sëriñ Falloo waxutaanoon ak soxna May ci bis bii guddi kero yaari ginaar la soxna May am yaari ginaar yooyee sëñ Basiiru Saar jaamu sëriñ Tuubaa da ko dinaa ko def ñaari junniy ginaar at mu jot ndax waxi sëñ Fallu jë sëñ Abdou Xaadir ne sëñ Fallu fu mu jaar mu di ngir waaye fu mu wàcc muy njëndi mhm. booba la def juróom-ñaari minute dafa des ci julli timis sëriñ bi yebal ma ni ma neel gédee na génne oto bi ma ni gédee gédee ja sëñ bi nee na nga génne oto bi dañuy génn ñu ma sëñ bi waxuloo ko julli di jot sëñ bi génn Touba ñu ni ngóor si da ñu ni kii lu na sëñ bi sol bot yi taxaw ci saal bi ku ne song sa oto ba mu demee ba tollu nit ñi sa sewetu kër ci jàkka ji te booba sëñ Abdou Khadir mooy xalif général ku nu murit mu tourné ne sëñ Thierno Moussa nan wàcc ñuy julli xam nga lu ma jublu ci lii mun ko loo jublu ci lii mun ko xër ci sëñ Fallou ca koñ boobee kero fa la Cheikh Abdou Khadir Mbacké jullee timis ndànk ñu may sëñ bi mu ñëw ndànk ndànk ndànk ndànk sëñ Moustapha na ñëw mu mooy seen toogaay bii Cheikh Abdou ne sant na leen gërëm na leen moom day wéetul ndax yéen barki démb li ma génne ci télévision bi yaag soxna Bari laa génne soxna Bali toog ni ne ñëpp déglu sëriñ Moustapha sëñ Abdou Khadir it mooy sëñ Fallu sëñ Fallooy sëñ Abdou du yaari kër genn la moo tax sëñ bi xolam sedd na lool tey li dayee ci moom seexlul bi daaray sunna mooy la yel moo tax ma dal jaay sama njureel man jëndee ko ab taal be Cheikh Bamba ben defal nu jannatan ilal jannaati ci yaari kër yi Mbàkke buñ ñeetaate te may nu fan bu gudd ànd ak barke fegal nu am ndong ndong njaboot ji Mbàkke saa xol cofeel la feese maa la sopp sama cofeel